ngook euh, li ci yéene kaay Seydina Omar Ba ba ñu euh, jubloo ci xibaaru tàggat yaram yi ba pare tàmbale ko Walf Quotidien bu tey lu mu fesal yéene kaay gii euh, waxtaan yi nga xam ne jot na koo seq kii di Aliou Tine mhm. mi njiital Africa Jom Center ci laaj ak tontu gi dox ci diggante mag suñu naatango yi moom Aliou kon ma ñaawlu la nga xam ne ni moo di suñu teluwaay démocratie bi ak adversaire politique yi nga xam ni ñoom lañu nekk daal di faagaal noonu la ko yéene kaay gi xëy fësale yéene tamit xëyee dellu ci crise bi nga xam ne Sénégal mu ngi koy euh, traversé jamono ji mhm. euh, mu doon nag loo xam ne da ci am jaaxle ndax Sénégal ba Sénégal doon euh, Sénégal ba tey situation bu ni mel mosuñu koy dund yéen kaay gi moo xëy fesal loolu yi leneen mooy yi nga xam ne nguuru Sénégal jot na ko ne ñoom seen jëm bopp ñoo génn ay milliards daal li koy jënde waaye li xaw a jaaxal ñëpp mooy boo demee fu ci mel ni Algérie Guinée équatoriale Égypte Zimbabwe ñoom ñëpp daal daanaka quantité bu nu mel lañu bu toll noonu la ñu am te waa Chine dañ leen koo may naka la mën a mayee ñi euh, jaay ñi loolu dafa doon loo xam ni euh, jur na ab xiina mi ci bopp askan wi noonu la ko yéenekaay gi di wàll fu côté ñooy xëyee fësale a euh, juróom maanaam jigéen ñi nga xam jotoon leen teg loxo mhm. gannaaw ba ñu ci mbedd mi doon manifesté ñoom ñëpp jamono ji ña nga police bu jëppal waaye ci àll allah ci bésu tey ji ci la ñu fas defeere noonu la ko yéene gi di les échos xëy fësalee yéene kaay bi di critique bu dee yéene gi di critique ko yéene kaay gi a noonu la ko euh, yéene gi di critique xëy fësalee sële yéen kaay bu dee yéen ji di l'exclusif dafa xëyee dellu ci euh, procédure judiciaire bi nga xam ni euh, daanaka daal fa la ñuy jëm mm-hmm. euh, tax lu ci toll ak juróom-ñaari avocat ñoom la ñu jël fu mu toll ni mm-hmm. ngir ñu défendre kii di Ousmane Sonko noonu la ko yéen kaay gi si waat ñu jàll ci yéen bi di tribune yéen kaay gi tribune semaine bi ñu nekk ni semaine la boo xam dina tàng lool ci kii di Ousmane Sonko yéen kaay gi moo xëy fësal lu ni mel mm-hmm. loolu nag mu ginnaaw ba nga xam ne ñii di ay naatangoom ñu ngi wér jàpp fenn ne euh, Bougane Gueye Dany nag solo na daalam dem seeti ji ko yëkkati na ay kàddam daal jëf ji nga xam nekk di def kii di mhm. a di xëyee fësale Sud Quotidien lu mu fësal waaw bu dee yéenekaay gi di Sud Quotidien dafa xëyee dellu ci complot gi ñu ne euh, nguur gi moom moo ko def jëmale ko ci kii di Ousmane Sonko waaye ñii di pouvoir bi yëkkati seen kàddu kon daal di koy weddi mhm. euh, ku ci may lu say

Euh, muy état bi di APR ba ci waa coalition Benno Bokk Yaakaar seen loxo daal takkewul mhm. euh, ci loolu nga xam lañ di waxal noonu la ko yéen a kaay Quotidien xëy fësale bu euh, mhm. a mhm. kaay gi a Quotidien ñu a a Sonko ak Adji Sarr nit ñi moom wéy di leen jàpp saa su ne mhm. yéen kaay gi moo xëy fësal lu ni mel mhm. léegi sax léegi dugg nañu ba ci biir euh, armée maanaam ci biir police mhm. na ci benn police ak benn gendarme boo xam ne dañuy njorti ne ñoo doon renseigner yenn information yi kii di Ousmane Sonko ñoom ñëpp nag fu mu toll nii teg nañ leen loxo ba jébbal leen waa brigade prévôtale yéen kaay gi moo xëy fësal lu ni mel am na ci nag yeneen ñaari alkaati yoo xam ne ñu ngi leen teg ba jamono ji bu dee dàmbuj ak ñi moom tey ji euh, te maanaam teg nañ leen loxo noonu la ko yéen gi di la côté ji nga xëy

kilifa diine yi euh, nañu génn wax noonu la ko gi xëy fësale mm-hmm. ndax bu ñu ci atum 1968 yaay jafe maanaam ci la xam ne nii moo fi amoon ci finn mm-hmm. euh, ñii di kilifa diine yi daal bokk na si ko fayoon euh, donte le Maxtaar Gueye ak Abbé Jacques ak maam Maxtaar Gueye ña woon démb fële ca Sonko mm-hmm. jot nañoo dajeek moom waxtaan moom noonu la ko yéenekaay gii di laas xëyee fësalee yéenekaay bi di Dakar Times yéenekaay gii di Dakar Times neexul ba ci diwaanu xëyee di delloo njukkal nguurug Sénégal di delloo mhm. a a baax ñii di waa yi nga xam teg nañ ko si yéenekaay gi Dakar bu dee yéenekaay gii di réew mi soxna professeur Moussa Seydi mhm. ci laaj ak tontu gi dox ci ma ngay dellu siwaat ci ñi xam ñoo am xiini mi ne jëmale ko ci vaccin yi mhm. ne daal na gars yi dem ñàkku ji te xam ne daal vaccin yi lañ ciy ragal amu ci euh, mi ngi ci yéen kaay gii réew mi yéen kaay gii de la Soleil dafa xëy tey ji dañu xam ne nekk àllarba yi mën a àllarba bi di ñëw mhm. euh, Sénégal dina dalawaat lu ci toll ak ñetti junni ak ñaar fukk ak ñeent ci ay dose de vaccin euh, kaay euh, bi di wàllu tàggat yaram ak stade stade yéen kaay lañ koy tàmbalee xëy dellu siwaat ci Manchester City bi nga xam ne jamono ji mu ngi fësal bopp ma ngi wane boppam mhm. ci championnat bu Angleterre maanaam ka nga xam ne ni moo topp ci moom rawee na ko lu ci toll fukki jërëjëf yemook euh, fi yéen kaay wala boog li xëti yéen kaay yi jeexee ñu la sant di la gërëm ci xibaar yi ñu doon déglu depuis huit heures. yow it di la sant di la gërëm <laughs> sant mi di gërëm bu baax a baax Adama Ndiaye. ah mbokk yi ku jàppul sa sàcc rek daf laan. waa mi naan général ak si nañ. yow mi bëgg nag kaaraange moo xam sa bureau sa kër.